lan moo tax koy weccee am montant boo xamante si dafa tuuti lool 50 millions d'euros yoo xamante dañ koy verser annuellement au Maroc pour des accords similaires yéeni kaay Sénégal ñàkk fayda gi wane ci accord de yooyu dafa ëkk yàgg jéggi dayo te yooyu pratique sax boobu ak léegi ñoom ñëpp seen liggéey dafa yàqu bu baax a baax fi mu toll la bëgg rek moo ni jéem a réglementé mbir mi leeral ko ba mu leer naññe le soleil yéeni kaay di naka ci ñaari jóorin Alioune Sall ak Alaaji Malick Ndiaye moom nag la mu xamle moo liggéey yi nga xamante na nag gis na naka fi wàllum taskatum xibaar média dañ ko war a régulariser nee na yàgg dara dinañ fësal siwal liste bi nga xamante si ñoo lalu ci média yi ñu dal xam maanaam ñi nga xamante ñi vox populi di nag ci askan wi li rapport 2024 bu gouvernement américain dal dee wax naka yéenikaayu Sénégal daanaka booy xool départ département bi nag ñoo njaaka ci li nga xamante ni moom la ñuy xale yi yéenikaay bi ne fi ñu toll nag Sénégal joxoñ nañ leen si tuuma de ndax ni ñuy paxat paxatee xale yi naka diggante du métti jéggi na dayo lool wal fajiri yéenikaay di kaat

déclaration conseil économique social ak environnemental joomaay naka dool naa valider conseil yi nga xamante moom la marché contrat financier ci axe du projet projet yéeni kaay bi ne marché ak contrat nag nga xamante ni correspondre dara ak priorité yooyu nag dañ ko war a annuler bu xool ne war a def rek ba jagalaat ko bu mu gën a jekk ab di investissement tribune yéeni kaay bi ne ab transparent bu leer nañ bu tolloo au bénéfice du peuple sénégalais loolu rek lañu xaar naka waaye xaaruñ leneen yéeni kaay bi naka mooy koy di ko bësal yéeni kaay bi yokk ci leneen maanaam naka xale yu góor yi xale yu jigéen yi phénomène bi nga xamante ne si moom la ñu amoon di jël loolee nag di tubbee ay volet ak ay kës daanaka yéenekaay bi ne gone yi bàyyeeguñu ko de booba ak léegi nag mbir mi moo ngi tàmbalee def ay jiyee ak i loraande si gune yi cay gone yi lu ne ñoo koy di mbir yaa ngoog ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg